to

Modou bëgg naa hmm? ci loo ne. ça va alhamdulilah sëñ Ba war maa ngi nga teew ci prison bi bi mooy ñaata yoon Modou teew ci prison ci lu mel ni waaw fii nag ñëw naa fii bu yàggul xaw yàgg na yàggul tuuti war na mën ay 4 ans ñëw di def ay don boo maa doon ci prison yu bari doon di def ay don ñëw fii xam nga saafonteeg ñi fi nekk daal soo fi duggee sa xol ci sa xel ci lan lay dem. waaw sa xol moom day tooy wax dëgg yàlla parce que xam nga joomul kenn waaye ku nekk sañoon am liberté dugub fu la neex génn fu la neex ba tax na comme li ma lay sànq rek di leen ñaanal ñii caabi féete ginnaaw yàlla may leen liberté te ku fi erreur dugal yàlla kàttanal la ba erreur boobu bu ci defaat ba nga ñëw fii incha allah dee ñaanal ñu fi nekk yëpp na ñëpp génn dellu seen njaboot yi. ndaw yi tey loo leen di dénk ndaw yi jibiti waaw di leen wax ñu yokk góor rek teg seen tànk ci yoonu njub ci yoonu mu mustaqim xam nga comme ni may wax erreur am ci àdduna waaye bëgg dëgg ci juum it day day day nekk ni tëddi tax di leen daal xam nga nañu jub liggéey jaamu yàlla don yi nga daan def don yi Modou doon def dañ ko gëj gis waaw xam nga rek ay mbërum làmb lañ des fois xam nga boo dëgg ma lay combat doo am benn temps ci concentration bi ngeen nekk xam nga nekk gis na xam nga daaw nu mu demee def nañ ko sa mais pas ci prison yi quoi daaw def nañ ko mais pas ci mais combat taxawee moom dootoo am benn temps loolu la mais incha allah bu ñu amee temps libre ci diggante bi rek dinañ ñëwaat demee ko si jaay incha allah. gi maa ngi lay ziar. waaw maa ngi lay mel ni tey da ngaa da ñëw foo xam ne nii ñi fi nekk dañ leen fee denc ñi ay ni di suñu ay mbokk suñu lépp guy gi ma gis nga jóg fecc bégal leen ñoom ñëpp ñu tàccu la loo yëg bi nga dugg see fii. waaw d' abord damay sant yàlla sant sama ñaari waajur maa ngi nuyu sama sëriñ Sagnal Seck borom ndigal di ñaan Sénégal yàlla fi jàmm yàgg te wër nuyu sama xalifa général di ñaan sama maam Ndiaga Seck yàlla yóbbu ko àjjana yàlla mënu ko yàlla na nuyu ñëpp Babacar di nuyu yow di nuyu ñi ñoom yàgg sa cameraman ñoom Lamine ñëpp Lamine yow Babacar tey su ma ñëwee tey fii dama fi war a ñëw parce que ñi fi nekk bon dugul leen fi baax ñi fi nekk taxul ñu bañ fee ñëw nattu la ñu bëri ay supporters loolu nag ay fans ñu def seen combat soxla ñu même buñ ko waxul woon su ko yëgee ñu ñëw loolu mooy suñu teewaay. tey ñu nekk fii wala sax maanaam détenu yi bu guy gi amoon message bu mu leen di lancer ban lay doon. mooy nattaloo rek ndax ku tedd gi mu xaaju rasul suñu juumu jaar na fi kon defe naa ne loolu ferte la ci ñoom ku fi nekk rek boo fi génnee xam nga li nga def mu baax mu bon nga bañ cee jaaral bu delu lu bon la bu dee baax la nga yokk ko parce que natu ni wurus. wurus ni ko xal di ko defee ba mu am taar noonu la natt jaamu yàlla di ko def ci moom ba mu nekk nit. moo tax euh, faaw nga nekk nit koo xam ni danga koy mën a muñ accepté ko mais dina ñaanal rek képp ku fi jógee rek yàlla yokk la ci ko am anam boo nekkee nit ki bëggul bon suñu borom rek moo koy bon loo. ñi fi duggagul te yàlla bu fi kenn ñi ci biti yàlla bu fi kenn dugg comme duggaguñ fi loo di wax ñoom. ñu moytu réew mi toll na foo xam ne ñëpp kenn wérul mën nga laal ni sax mu dee te fekk dafa doon yàlla jaarale ko ci yow histoire baaxul jàmm rek moo gën lépp àdduna bi jeex na ba pare ñu yénte jàmm jàmm ci lépp xaj waaw du nuyu waa ñëpp nag waa États-Unis ñoom Gambé ñoom Abdou Diouf Abdou Medina ñoom Laye Ndiaye Yamou Ndiaye bàyyi wuñ kenn waa États-Unis ñi bëggee bu baax parce que ñoom ñi tey ku fi ñëwoon tey di nga am fierté ñëw fii kon defe naa man su ma teewalee teewal naa ñëpp kontaan ci yow <laughs> yow it kontaan ci yow di la jox rendez-vous xam na war nañoo yaatal bu bëree bëri non lu bëree parce que bu ñuy génn yow sama waay nga nuyu ñi ma àndal ñoom Dere ñoom Pape sama taalibe xam nga Dere suma xarit la suma doomu ndey la yow xam nga ci Dere suma lépp la di ko nuyu baax nuyu ñi ma àndal ñoom Bohaba ñoom Baye Seras ma kenn di ñaanal sama ñoom Pape Ndoye yàlla may ko ndam dibir problème yàlla may ko di ñaan yàlla daal mu yokk ci ñun ñëpp jaayee. ziar ñu ngi dellu baax. Sa Thiès tey ñu dajeeg yow foo xam ne nii lii la boo xam ne nii ay détenus lañ fi dañ maanaam ay doomu aadama yoo xam ne xëy na dañoo yoon ci li ñu wax ba denc leen fii bi fi ñëwee fecc ñoom ñëpp ñu jóg saa lan la yëg. moo tax chaque fois sama sama kàddu bu moo ciy wax danaa ñaanal ñi génn àdduna di ñaan ñi tëdd hôpital ñoom laa ciy teg parce que lii du jaas ci doomu aadama ndax kenn ku ci nekk yàlla rek a xam ëllëg li am solo ba am solo mooy maa ngi leen di ñaanal yàlla ñu génnaat ci jàmm te leen fi dugal bañ leen fi dugalaat ak feneen fu nit war a nekk. maa ngi lay ñaan a nga génn nekkat ca jàmm mën a gérer sa famille fondement njaboot gi yëpp ci barke Seydina Mohamed wax dëgg yàlla parce que ñi fi nekk nii tey kaaraange réew mi leen fi teg wax dëgg yàlla tey euh, ñi ngi ñaan yàlla rek euh, yàlla defal leen jàmm waaw. ay ay détenus comme niñ koy waxee mu mel ni kii euh, ñi nekk ci biti. dinaa la laaj parce que am na ñoom ne dugg guñ fii yàlla bu fi kenn duggati yaa ngi dégg ñi ci biti tamit loo leen di digal pour ñu moytu lu nii. ñu góorgóorlu sax ci lu jub rek sax ci jaamu yàlla ndax jub du ma ne terewul nit ñëw fi parce que fii moom am na ñoo xamante ni xëy na du coobaree lu bon wala lu ñaaw moo leen fu dugal heure day am mais maa ngi lay ñaanal yàlla rek kenn bañ ko cay fekk yàlla yàlla dénk ñëpp jub sax ci jaamu yàlla yàlla jubanti musal ñu ci fii wax dëgg yàlla ñun loolu rek lañ ci mën a wax ndax fii moom li yàlla xam doy na waaw ñu ngi sant ba jërëjëf. maa ngi lay ziar. waaw maa ngi lay fay on jubilaa bisimilah ina waali yàlla Babacar maa ngi lay bigal. Uh-huh. Uh-huh. tey teewaay bi fii ci biir prison bi yow li ma lay laaj da nga jël micro am benn wax boo wax ñoom ñëpp ñu aw wax. waaw li ma wax ñoom xam nañ ko. Uh-huh. parce que uh, fii nii ay jaamukatu yàlla ñoo fi nekk. ñu xamante ne bu baax ñu biir. xam nga samay mbokk taalibe nekk ay nit yu baax tamit aussi nekk fi moo tax bi ñu ma invité ma ni lu ma mënti def rek bi mooy troisième année ma fiy ñëw te fekk yàlla mu ngi may bàyyi fii nii si senegal chaque année bu ñëwee damay ñëw teew parce que samay dundal lañ. Uh-huh. loo leen di digal ñoom ñu ne ci biir. waaw xanaa di leen yàlla lek xam nga yàlla génne leen fii nii ba bu ñu génnee tamit ku nekk lek la la juumloo woon ba yàlla indi la fii nii ah nga nga bañ ko defati parce que am na ñoo xam ne sax amaana ñu ngi fi nekk te defuñu dara am ñoo xam ne dañoo def. man xamante naa gars yi bu baax mais maa ngi leen di ñaanal yàlla képp ku si génn rek nekk si yoon bu jub fii moom day defar day defar doomu aadama ñun xam nañ ko bu baax jaar nañ fi dund nañ ko waaw. jaajëf Babacar kontaan si yéen. Saka maa ngi lay ziar. waaw maa ngi lay ziar di ziar képp kuy téléspectateur wala ngay internaute Leewtoo TV waaw. Saka tey nga ñëw ci prison bi. waaw ah, fi duggee. ma gis nga jël micro ñu mel ni dañu am lu ñu yëg ci contentement ñoom prisonniers yi. waaw loolu lu mu def ci sa gaar. waaw man bi ma jëlee micro bi ñoom contentement lañ yëg mais man dama yëg benn euh, naqar ak boo parce que ñu ma bokkal yaay ak ñu ma bokkal baay ndax ñu ñoo bokk Sénégal ñoom rek laa fi gis sama yaram wi daw. man mi nga xam ne tey su ma amee soxla doxi ko lu ma mën a bëgg dem defi ko ñoom ñu téye leen benn place may ñaan ci barke yonent bi ñoom ñëpp yàlla na leen yàlla may ñu libéré leen ci jàmm te bañ fee ñëwati maa gën a kontaan di kontaan nag ci waa Leewtoo TV ndax ñoom seen commencement ba fin yam lépp làmb la li ñu bëgg ñoo ko xam yàlla na leen ko yàlla defal jaajëf Siteu maa ngi lay ziar. Babacar nuyu nañ la ginnaaw bi ñu sant yàlla jërëjëf di nuyu àdduna di nuyu détenu yi nekk fii nii. waaw conseil bi ma leen di jox rek mooy di leen ñaanal yàlla yàlla génne leen si jàmm quoi. aussi buñ génnee xam nga li leen def li leen indi fii maanaam ñu invité ko. waaw aussi tamit di wax parents yi nga xamante ne dañoo abandonné seen doom waaw ñu delloowaat seen xel quoi xam ne fii nekkul bërëb boo xam ne bërëb bu bon la dañuy sensibiliser góor yi rek. aussi tamit di wax na rek képp koo xamante ne rek mën nga si ñoom moo nekk ndimbal lu mën a doon rek yee nga def ko pour ñoom te parce que bokk na si li nga xamante ni day dina wàññi seen fan fii waaw. waaw Bou Siteu dafa mës a jaar fii. waa jaar naa fi mais 100 mètres laa jaar. waaw Saamar laa nekkoon 2015 mooy guy gi ama seen problème boobu noonu waaw si lañ ma fi téye woon mais problème mu xeex la rek waaw mais ba ma génnee ba léegi nii damaa xam fu may teg sama tànk moo tax boobu ba léegi maa ngi sant bu baax a baax mais fii samay mbokk ñoo fi nekk waaw ku ci mel ne ñoom Fallou seen pakala ñoo xam ñoo doon ànd ak ñoom xam nga ñoom Modou sama gars yi nekk Pikine waa Grand Yoff maanaam soo limee da juum ñu nekk si kaso bi maa leen di ñaanal bu baax yàlla nañ ñoo xam ne ñoo doon ànd sama gars yaa ngi sàng ba ñu ngi may tàllal loxo waaw maa leen di ñaanal yàlla na leen yàlla dimbali ñu bàyyi leen waaw di nuyu àdduna. Boy Notaire looy wax si teewaay. waaw di kontaan ci lii parce que soo ba léegi ay nit ñoo xam ne ñoo bokk benn koñ muy Mama Sali muy Abdou Karim Diouf Tonnerre muy Sadibou suñuy gaañ lan quoi lii dafa naaj trop bari Serigne Touba parce que ñi dañoo bokk ci ñun géejewaay leen dëgg ñoom ñëpp yaa ngi dëgg bu ñëwee fii leen fii suñu yaram day daw suñu yaram day daw quoi parce que lii ku nekk jaar na ci mais da leen ñaanal suñu borom teggil leen lii yaa ngi dégg mais kontaan nañ ci trop trop trop parce que ñi suñuy nit lan quoi parce que Serigne Bamba te ay borom baax lan jaajëf waay ok. waaw bëggoon nañ euh, nga fat ñu tur bi. waaw man la colonel Jean Bertrand Bocandé euh, directeur de l' administration tey pénit maanaam ñu ñëw fi nga xam ne nii mooy camp pénal ndax ay détenus yoo xam dañ leen fi tëj ñu organiser leen lu jëm ci wàllum sport. Mhm. ba tey làmb tëj ko. Mhm. lii ñaataat ngeen koy def ak lan moo tax ngeen di ko def. waa kay jërëjëf xam naa wax bi du gudd sax parce que fu mu nekk nii daanaka guddi na. dama bëggoon euh, tàmbali remercier euh, remercier euh, ñi bàyyi seen soxla yëpp ñëw jàppale ñu ah gis nañ fi maire bi gis nañ fi le président Dembélé juge d'application des peines gis nañ fi grand champion le roi des arènes ak grand lutteur yi ñëw nañ gis nañ fi aussi ay musiciens ñëpp ñëw nañ jàpp ci bés bi waaw wax dëgg yàlla ñooñu amuñu leen fay parce que li ñu def nii ñun la ñuy jàppale parce que lii dañ koy soxla dañ koy soxla fii ndax ñii nekk fii xam nañ ne ñii nekk yi biti fàttewuñu leen que natt moo leen dal boo xam ne moom lañ ko war a passé fi su jeexee dañuy fekk si njële. donc su loolu weesoo gis ngeen activité yi gis ngeen nu mu demee euh, fii euh, foo agréé la foo agréé loolu moo lay wan ne ñoo bokk benn famille. Euh, lii nag c'est des activités j'allais dire yoo xam ne chaque année inspecteur Thiaw ba yàlla def mu mooy directeur camp bien sûr sous la, la direction de de l'IRAP Souleymane Faye dañuy organiser manifestation yi daaw yàlla mayoon na ñu nekk fi ren yàlla may ñu ñu nekk fi ñu ngi ñaan déwén tamit vraiment bu kenn manqué ah ñu fekk ko si jàmm ak salaam ah. donc sama gars yi ñoom sama pensionnaire je crois wax bi du du gudd trop parce que man gëjuma fi euh, ajuma bi génn weesu rek laa fi laa fi mujjee ñëw. don euh, accueillir en visite euh, monseigneur euh, Benjamin Ndiaye mooy archevêque de Dakar donc man lu ma leen di wax rek mooy nañu muñ nañu muñ kaso joomul kenn ah ñun lu ñu war ak ñoom ñu ngi koy def te ñoom xam nañ ko. vraiment di sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen sant ñoom journalistes yi nga xam ne saa yu leen wooyee da ngeen di bàyyi seen soxla yëpp. ñëw ñëw taxaw ñu waa kay jërëjëf di sant ñu fi ne ñu fi ñëw ñëpp ah waa Lamp Fall waa waa waa wal waa wal fajëri ah ak sama sama xarit Pape Ndiaye ak ak Yves Ibrahima Sall boobu asret vraiment di rafetlu trop tam seen seen liggéey bi ak surtout seen émission balance parce que gis naa ne émission boobu vraiment ñun lañu ko jagleel parce que chaque deux semaines dinañu invité léeg-léeg sax maanaam non bàyyi leen tuuti ah bàyyi wax tout le temps waxu kaso yi vraiment leen remercier ci ci soutien bi jërëjëf. Euh, inspecteur Thiaw wala. sama directeur non dama réaction bi mooy maanaam tey yéen yéen ay la yàlla dogal ngeen di denc détenu yi fii dundin bi ak yéen ak ñoom nan la demee. bon en fait euh, kaso peut-être pour ñu ko xamul rek. mais nit ku ñu euh, dénk kaso dañuy teg ko dañ koy teg ci condition yi nga xamante ne ne comme ñi si biti li ñuy dund loolu la ñuy fexe ñoom ñu jéem ko dund moo waral ñuy organiser genre activité yu mel nii peut-être que yéen tey euh, final bi nga xamante ne moo tëj final yi ngeen fekkee muy finalu euh, lamb ji mais amoon na football amoon na basketball amoon na sax ay jeu d'esprit yoo xamante ne si mel ni bullet Scrabble yooyu yëpp amoon na tournoi c'est-à-dire mooy li ma la wax léegi rek kaso on fait le maximum possible pour li nga xamante ne ne ñu nekk ci biti ñu ngi koy dund ñu jëm ko dund fii ci biir looloo tax ñuy organiser loolu pour jagleel ko pensionnaires yi muy activité boo xamante ne ne activité bu bokk ci calendrier camp la parce que bu ñu waxee camp pénal mooy kaso bi nga xamante ne ne longue détention yi ñoo fay nekk te ku wax longue détention wax préparation à la réinsertion sociale préparation à la réinsertion sociale du jox nit ci métier kese parce que donte am na fi parce que am nañ fi atelier menuiserie bois menuiserie métallique atelier tailleur atelier atelier art décoration tapissier mécanique yooyu yëpp am na fi mais du loolu rek mooy préparation à la réinsertion sociale fexe nit ki muy dund koy dund ci biti social la parce que psychologiquement dina mun a pare te bu ñu nee sport sport bu ñu koy affaire acceptation règle de jeu te ku accepté règle de jeu wu kaso lu ci mel ni football nga xam ne ay coup franc yu ci nekk ay règle la ñu teg mun nañ njortu ne boo doolee di nga respecté règle yi nga xamante ne moom lañ teg pour société bi dund en paix. kontaan nañ ñoo fa jaajëf inspecteur Thiaw la Serigne ah.